waaw tey dañu amoon euh, ndaje boo xam ni dafa dajale ñi nga xam ni ñëpp dañuy yëngu ci mbiru secteur postal muy secteur boo xam ni ñëpp xam nañu importance bi mu am ci économie Sénégal ndax jàpp nañu ni ñun ñëpp euh, ku ci nekk mas na wu wala mas na euh, bénéficier wu ci service mi nga xam ni post daf koy délivrer ndax xam nañu ni post ci premier wu mën naa ni entreprise yi nga xam ni ci mbiru mën naa ni mbiru joxe courrier wala mbiru. communication mu war a ju joxe pour njëkkal joxe leetre la woon mais après mu dem ci ba ci joxe xaalis donc y a beaucoup de de de services yoo xam ne poste boo ko doon joxe. tey nag secteur bi dafa am lu ko dab mooy mbiru numérique mbiru digital ba ba tax na kon dafay jaadu ñun ñëpp ñi nga xam ni ñoo ne ci secteur bi ñu daje waxtaan. sottante xalaat xool aussi nan la ñuy mën a intégrer numérique boobu ci suqaliku kër gi donc loolu nag ñun jàpp nañu ni opportunité la bu bees boo xam ni. suñ ko jëfandikoo ni mu waree numérique bi dina nekk opportunité pour que poste gën a suqaliku pour que poste aussi mën a euh, mën naa ni may ay services yu bees citoyens yi ndax euh, numérique bi dafay ubbi ay besoins yu bees day ubbi ay service yu bees day ubbi ay yoo xam ni opportunité la pour la poste te avantage yu poste mooy dafa nekk société boo xam ni tey am na lu ëpp ñetti téeméer ak ñaar fukki bureau de post ci Sénégal cest à am na dëkk yoo xam ni poste moo fay administration donc loolu moom ñëpp xam nañ ko lu ñu yàgg dund la te loolu nag soo nekkee dafa nekk avantage concurrentiel par rapport ñi nga xam ne ñoo koy concurrence kon poste su capitaliser loolu avantage am yooyu yàlla mun na ko defal jàmm beneen bi également xam nañ ne poste dafa am patrimoine immobilier bu am solo su ko valoriser tamit mën na ko dimbali ci soqali ko beneen bi mooy li nga xam ni mooy expertise bi nga xam ne post am na ko ñëpp jàpp nañ ni les meilleurs experts du secteur postal sont à la poste loolu dafay wane wala tax ñu am yaakaar ci ëllëgu poste xam ni ña fa nekk mën nañu xalaat xarañ am nañ xarañte bi pour mën a xalaat nan la post war a doxit ëllëg pour suqalikoom am mais également profité naa ci bis bi partagé ak euh, les acteurs ci engagement wu président de la République ak gouvernement du Sénégal pour jàppale secteur bi parce que dañu fàttaliku en 2016 donc poste mu ngi doon réclamer état du Sénégal 42 milliards ci dette boo xam ni état du Sénégal daf amoon ci benn at yàlla suturaal ñu ci jàppale président de la république ci benn at mobilisé nañu ba fay poste 42 milliards yooyu mais également gouvernement bi yemul ci loolu ndax président de la république daf ñu digal ñu gën a jàppale post ndax ni mu nekkee secteur bu am solo ci réew ci loolu nag 2020 bi ñuy ñëw jàpp gisoon nañu ni mooy rémunération service publique bi nga xam ne état bi daf ko doon jàppale poste pour mu doxal euh, service bi 1 milliard 300 la woon tey ci budget 2022 bi budget boobu jàll na ci 3 milliards cent cest à nañ ko presque ñaari yoon loolu day wane rek engagement wu président de la république ak gouvernement bi pour jàppale poste pour mu suqaliku mais également wax nañ ko sànq numérique bi tey opportunité la pour que poste gën a suqaliku mais aussi offrir ay service yu bees ba tax na ci loolu aussi ñu ciy liggéey ak suñu partenaires yëpp ki nga xam ni ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi te wax naa sànq ni ARTP nga xam ne mooy régulateur bi mu ñuy jàppale ci réguler secteur bi nan la ñuy def ay texte yoo xam ni wala environnement boo xam ni dina tax ku ci nekk dinga nga a doxal li nga bëgg doxal te doo gaañ sa morom mais également ñu am cadre juridique boo xam ni mooy réguler le secteur beneen bi mooy euh, xam nañ ni poste am na patrimoine bu am solo mooy ay immeuble ak ay terrain yoo xam dañu place fi ñu nekk suñ ko valoriser ak la nouvelle loi naturellement sur la valorisation du patrimoine immobilier de l'État loolu lépp dina nekk ay opportunités yoo xam ni dina mën a tax poste tey gën a suqaliku gën a retrouver ma xam ne place bi mu nekkoon démb mooy poste société bu rentable boo xam ne dina participer bu baax ci développement économique Sénégal ci loolu la ñu merci beaucoup yàlla di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo tax ba ñu teew fi tey mooy sama xarit euh, Yankou Yankhoba Diattara ministre de l' économie numérique et des télécommunications ak madame Niass nga xam ne moom moo jiite secteur postal au niveau Euh, au niveau de du ministère donc lii dafa di loo xamante ne lu ñu soxlaloo woon xamoon nañ ne secteur postal deewul tey bi ñu fi ñëwee gis nañu acteurs yi gis nañu euh, SN SN national la post te li liñ fi jot a gis neex nañu parce que li ñu fi jot a gis wane na ne secteur postal bi il est en pleine mutation monsieur ministre wax na li li nguur gi jot a def euh, la SN La Poste le régulateur aussi bi nga xam ne man la yàlla euh, wërsëgal ma jiite ko ñu ngi ci tànku assainir secteur postal bi ñu ngi ci tànk établissement d'un cadre cadre boo xamante ne jotaay boo xamante ne acteur secteur bi yëpp dinañ ci mën a daje di weccoo ay xalaat di jàppalante pour économie sénégalaise jëm jëm ci kanam parce que ñun ñëpp loolu rek moo ñu yital leneen lépp intéressé wuñu ce qui nous intéresse c' est le pays c' est l' économie du pays et je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui li ñu fi jot a gis tey dal na suñu xel bu baax